mënoon indi rek ñu ngi la ci euh, sant di la ci gërëm bu baax ci ci ci teewaay bi comme temps jafe na képp ku bàyyi sa temps ci ñaari minute di sant ñëpp tey dalal ñëpp jàmm di ñaanal aussi bébé yi nga xamante ne ñoom ñoo fi juddu yàlla def leen islam ba nga xamante ne dinañu jëriñ seeni waajur ñoom ñëpp ñu fekk njëriñ li encore di gërëm encore relais yi nga xamante ne ak lépp lu ñu mën di liggéey ci biir quartier bi ñoom ñoo ci jàpp ba mu mën a tane ñu ngi ñu li ñuy wax itam ñu ngi koy wax ci baatu délégué de quartier yi nekk nga ko yëpp ak seeni sous délégué ci ñëpp xëy na xëy na bëggoon nañu ñëpp mën nañoo teew mais nag waxal waxal nañu ñëpp daal baat bi baatu délégué de quartier yu Ngékokh yëpp la ñu ngi sant di gërëm mbooloo mi yëpp di ñaanal ñëpp jàmm di gërëm seen di ko sant di ko ñaanal jàmm di ñaanal aussi Paul ñi nga xamante ne daal ñoo nekk ci poste santé yi ñu ngi leen di ñaanal jàmm di leen ñaanal ak seen seen xam-xam gën yokk ci barke yonante bi sallallahu alayhi wa ñu daal li a gàtt daal sant sant nañu ñëpp ñaanal nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp yal na yàlla kontaan comme ni ñu kontaanee nii jërë ngeen jëf. di remercier di nuyu monsieur le maire premier magistrat de la ville. Nous sommes aussi médecin ou son représentant Nous sommes ICP Genson Belsen poste de santé Ngekoox 2 Nous sommes aussi madame Yad sa famille, les délégués de quartier les relais communautaires et les de gox les parrains et les marraines de la journée Nous sommes aussi Ibrafal, La jàpp organisation donc vous ñu leen nuyee nous seen seen teewaay waaye ku ci nekk xam na ne jot amul te nit ay nit boo leen woowee ñu wuyu si la mënul na sant leen gërëm leen kon donc ñu leen sant di leen gërëm bu baax a baax a baax leen jox seen wàccuwaay ñu ngi ñaan aussi bés bi aussi ñu commencé ko bismillahi rahmaani rahim te yeggali ci alhamdulilahi rabbi alamin li fi tax a daje tey mooy féete naissance des deux premiers bébés de l'année ñoom ñoom it bien vrai que feet la mais li ëpp ci bés bi ñoom ñoom lañ ko war a jagleel donc ñu leen di ñaanal gudd fan yàlla dund te barkeel bu ñu nee aussi am nañu ay waajur seen waajur aussi ñu leen di ñaanal yàlla ñu am lu ñu yoree bébé yooyu yàlla ñu teen bébé yoo xamante ay bébé yooyu di déggal la donc ñu ngi remercier aussi monsieur Sène Guène Sombel ak équipe bi ñun waa communauté de santé ñooy liggéey ñoom li de ci ñoom xam nañ ko parce que saa yoo ñëw ci poste bi seen disponibilité am doo ko naatable ñu ngi remercier aussi madame Yad ak équipe bi mu àndal au niveau de la maternité ñu ngi def travail bu extraordinaire boo xam ne bu remarquable au niveau du poste de santé de Ngeko de Ngeko 2 maa ngi remercier aussi ñu bokk communauté euh, comité bi aussi parce que nek président de comité man kessé mënuma koo doxal mais ñam ñu ci jàpp bu baaxa baaxa baaxa ba ba bi mu may jëm kanam di leen ci remercier bu baaxa baaxa baaxa ba sen toute l'équipe du poste de santé de deux ñu ngi leen remercier y compris aussi les relais communautaires dox nañ seen yobante pour ñu remercier ci kanam mbolo bi imam bi imam bi aussi jaar na fi bàttale na ma ci yow Moussa Diouf né nañ la remercier aussi ci kanam mbooloo bi mu nekk loo xam ne la donc il fallait que ma ma wax lako wa nga ko aussi ñu ngi len di remercier aussi ci confiance bi ngeen tek suñu suñu kaw ku ñu diriger poste de santé bi ci comité bi donc confiance moo tax ngeen am ko ba dox ñu poste de santé bi ñu ngi ñaan kon yaakaar bi am ci ñun yàlla bu yaakaar boobu tas ñoo ko jiite mais ñu ngi ci woo ñëpp képp koo xam ne yaa ngi dëkk ngeen ko jàpp nga ni comité santé bi aussi boo dugalee sa loxo mbir mi gën a jëm kanam ñu ngi lay woo ci liggéey bi pour nga ñëw jàpp ci bu baax a baax a baax a baax puisque guddi na nag donc yaakaar naa foofu la ñuy yem pour l'instant ñaanal nit ñi képp koo xam ñoo nga fi aussi ñu lay ñaanal nga dal ak jàmm aussi nga dund ci jàmm ak salaam que la fête soit belle merci beaucoup baax a Bonjour, monsieur le maire de la commune de Nguerfort. Monsieur le médecin-chef du district sanitaire de Mbou, Monsieur l'ICP du poste de santé de Nguerfort 2. Président du comité, président du comité et son équipe religieux et imams, l'association des sages-femmes de Mbou, l'association des infirmiers de Mbou, monsieur et madame, les agents communautaires et Badjanougo. chers collègues, honorables invités. Nous nous réunissons aujourd'hui non seulement pour célébrer la nouvelle année 2024, la naissance des deux premiers bébés de notre commune, mais aussi et surtout remercier le personnel médical et les organisateurs. Sans oublier de féliciter les parents des bébés et en leur sortant une longue vie aux nouveau-nés. Monsieur le maire, nous nous, nous ne vous remercions jamais assez, vous et votre équipe municipale. Par ailleurs, euh, aujourd'hui, nous voulons remercier une personne qui nous a soutenus, qui nous a accompagnés et qui nous a guidés sans relâcher dans nos tâches quotidiennes qui se nomme l'infatigable ICP, notre chef, M. Sen, Genson Belsen. En effet, M. ne ménage aucun effort par ses suggestions, ses conseils et ses écoutes pour nous placer parmi les professionnels médicaux d'élite du département de Mbourg. au nom de tout le personnel de la maternité, y compris l'infirmerie, nous vous disons merci. Merci pour votre aide, merci pour vos conseils et merci beaucoup pour l'écoute, mais aussi merci pour votre bonne volonté. Merci mon frère. Et derrière chaque grand homme, il y a une grande dame qui se nomme Madame Sen hadi comme je l'appelle, de cœur. Merci à toi aussi. Nous ne terminerons pas ce discours sans remercier personnellement les facilitateurs communautaires qui sont les relais et les Badianougor. Je vous dis également merci beaucoup. Nous disons également merci beaucoup à mes collègues immédiats, Adia, Agnès et Maman Assoudrame, qui travaillent nuit et jour sans interruption pour satisfaire à tout prix nos patients. Merci beaucoup. Euh, maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp di leen sant di leen jaajëfal euh, parce que mënoon nañoo woote te du ngeen ñëw di gërëm rele communautaire yi ak bàjjanu gox yi ndax organisation macha allah yéen ñëpp lii lépp yéen la su ngeen amul woon xalaat bi peut-être du ñu agsi fii di ñaanal yaayu bébé yi yal na leen yàlla may wér ak wérle di remercier tamit sama collègue sage-femme yi ak euh, président président association ñom ñëpp teew nañ sha allah ma ngi leen di gërëm bu baax di remercier sama sœur yi sama nijaay yi ñoom ma sha allah gis na leen gis na seen taxaway seen ma lay jaajëfalaat bu baax ndax euh, jappalé nga ñu ci liggéey bi té yombalal nga ñu ko kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax merci beaucoup. merci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa mbooloo mi asalaamaaleykum waa poste 2 bi ma ngi len di nuyu di len di sante ku ci nek sa tour ak sa sante wa ma fi ñew rek di tew rek ci tewayu Saasum Sané wax deug ci yalla amon na yene pour ñew taxaw fi tay ji kaddu yi ma fi jël tay ji ci kaddu Saasum Sané la koy jël Amon na yene pour ñew tew ci bes bi mais jam ak pehem yalla ak dogalam wax deug ci yalla dafa am ndog-ndog bo xamante ne mais jàmm ak salaam la looloo ko tere mu joxe ngant mais lii yéene mag asakam yëpp wax dëgg si yàlla jox na ma ko may nuyu jeen mi nga xamante ne moo nekk ci poste de santé bi di nuyu bajanu gox yi di leen di remercier bu baax a baax parce que gis naa seen taxawaay bi nga xamante ne moom ngeen def ci poste de santé bi liggéey bi rafet na macha allah bajanu gox yi lépp loo xamante ne ñoo koy def ñoom ñoo lii seen wàllu ñoo koy def di nuyu sage-femme bi nga wax deug ci yalla gis nañ sa taxaway rafet na macha allah parce que gis na lo xamantene ci yow lo xamantene musuma ko gis ci sage-femme gi fi nek yeb yow mi nga xamantene yaay dug ci bir koñ gi di sensible jigen gi pour ñu mëna ñew def sen dépistage kon yow ñong la ci remercier di ñuy ñaanal bébé de nga xamantene ñom ñoo fi juddu yalla yalla may leen wirdu yaram mu may leen ñu doon magum jëm ñu doon magum l'islam sen yaay yi nga xamantene ñom am yalla leen yàlla may wër ci na barki wa salaam waa saasum nag moom indi na fi asaka yéeneem bëggoon na nag lu ëpp lii mais dafa yemoo programme bi tey lu bari dafa yemoo ci boppam parce que boo xoolee défilé bi moom tamit marraine la foofu moo tax ñëwul maa ngi leen di nuyu di leen di sant asalaamaaleykum wa rahmatullah nuyu naa ñëpp asalaamaaleykum mbooloo mi ñoo ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam ci ñëw ci turu monsieur le maire monsieur Ahmed Diallo le premier parrain bu bébé de l'année première bébé de l'année wu poste de santé 2 tey ñu koy defar feetam waaw bëggoon na nag teewee bés bi lool waaye mu ngi ci dafa nekk ci voyage muy kontaan lool nag ci cër biñ ko jox di kontaan lool ci parrain biñ ko def ñu leen di wax ni kontaan nañ vraiment di remercier madame Yade di remercier monsieur Sène di remercier Tata Aïda Faye ak l'ensemble des bàjjenu gox et mais incha allah dina ko topp di ko topp di ko topp ba mu def ba incha allah ñu leen di wax ni kontaan nañ jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf merci beaucoup. maam fi nag ñu may rondool muy ay góor mu ay jigéen may nuyu sama càmmañ bee Papa Gueye Diom nga xam ne moom la njëkk a doom yaa gore Iya di nuyu Xadi do mi tok fe nga xam ne ñoo daan ando ci bu deg beccé di nuyu sama yumpaañ yi ak sama tante yi nekk ñoom multimaar bàyyiwuma kenn ak ñoom at ñepp sama mbokk yi ñoo fi nek ma ànd ak sama délégation sama sœur yaaya fay Xadi sama chérie mariam sar sama rak kon nak ma ngi nuyu ñëpp ah, monsieur sen ma ngi lay ziar bu baaxa baax waroon na sant Sène nag danga war jaay sante parce que sante sen lek rek lañu def waaw nga bokk ci maa ngi lay nuyu bu baax euh, lii ngeen def boolu ma ci dafa rëy ci man ndax damaa yaroo fii ci dëkk bi teel a jóge fii Belgique macha bi may dem Belgique boobu maa ngi am presque 19 ans ma def fa lu mat 40 ans donc yàgg naa Belgique tey campement ay dafay mi tricheur la nag kii tricheur la maa ko fi jiit waaye daa bëgg na ko campement nga xoox mais yàlla indiwaat na ma campement nga xoox ay da lemal say maa ngi ñëw waaw kon nag lii dama see parce que sama doom lii lay liggéey li ngay liggéey mu ne ma yaay yoro ñu waaye man lañ ko a jox ma ne ko déet maa fa yaroo dañ koo xëccoo maag moom mu ne mu ngi ñëw vacances bu ñëwee vacances dina bokk yow liggéey bi bokk ak hôpital bi liggéey bi ak samay doomu tubaab yoo xam ne ba ma leen waxee dañoo kontaan ndax xam nga lépp mën ma ko def si avion bi lépp mën ma ko def mais ñu ngi préparé loo xam ne lu rëy la bu indi ko fii seen hôpital bi parce que lii dafa rëy ndax cër la ci man may nuyu monsieur Diallo sama jaam la ah Diallo sama jaam la parce que xale di ñooy buur bi ah maa koy ziar bu baax di nuyu euh, monsieur Waly Dione ah kooku sama maam mooy monsieur Waly bu ñu jógee si buur bu ñu nekkee buur monsieur Waly Dione maa ngi koy ziar bu baax di ko nuyu di nuyu Daba Ndiaye gis naa ko si tur bi Daba maa lay ziar maa ngi lay ziar bu baax di nuyu monsieur le maire sama tonton Pape Diouf moo tax maa taxaw kan maa ngi xoo bañ koo nuyu ndax sama nijaay la sama lépp la maa koy ziar bu baax a baax a baax bi di nuyu nag marraine yeeg ñi fi nekk ak parrain yi bàyyiwuma kenn dinaa wax dëxati xaaral rek wax laa man damay politique moo tax may ma may coordinateur may coordinateur may coordinateur service may seen coordinateur nag ma ne ma dolli euh, si li may wax di nuyu Pape Diouf di nuyu chef de quartier bi chef de quartier bi maa ngi koy ziar bu baax a baax parce que lu mot a ziar la aussi parce que lii bu amee tey yaatal na yëf yi comme ngay kontaan naa si yow bu baax a baax a baax monsieur monsieur seen pare guñu si yow de waa Belgique ñi ngi ñëw de ba ngeen ma waxee damaa dem matul weer ay dafay ooma ma dëgg sama biir bàyyi sama ñëwul ak ñëw dangay delluwaat mois de février mais di nga xam ne ne Ngaparou ñëw na Belgique ñëw na may nuyu nag waa Ngaparou ñi nga xam ne ci ñoom laay parce que ñii ñu ñaata ci ñaan lañu ngapparu sama papa moo nekkoon docteur ngapparu le premier docteur de ngapparu fii sama baay ñu màggee foo sama rek ñu juddoo fa man ñu indi ma campement Ngexoox gi ma yoroo fii Ngexoox nag sama lépp nag mu ngi Ngexoox mais sama lépp aussi mi ngi ngapparu gis nga ñii benn bopp lañu dañoo dañoo dañoo gëm seen bopp gëm lañu ñu bëgg gëm nga ngapparu boo ci ooyee kenn ñoom ñëpp ñooy def seen ñoom ñëw maa ngi leen di gërëm nangu ne yow da nga di sama wuti di sama seede ah maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp bàyyiwuma kenn waa Ngap li ngeen def neex na ma te rey na ci ñu naan ah. te rey na si Tamba ngeen xoox lii dama koy tiitaroo ah. parce que dañoo wax rek ngeen daw yéen ñëpp ngeen ñëw fekk seen maam woo ne mi nga xam ne dañ koo yëgal mu ñëw def reetaan ngeen def délégation day ñàkkul maa bëgg si yéen ak ah, ñoo mën a toile ba xale yi ngeen leen di nuyu waa Tamba ngeen xoox bàyyiwuma kenn ñu bàyyiwoo ci maar maa ngi lay ziar di ziar ñëpp vraiment bàyyi bu nuyu waa CNN di nuyu sama ñoom yu bari ak man d'accord ma naree bu ma naree waxtaan maa ngi kii dañ ko baax ni ko lay delloo maa ngeen di nuyu bàjjenu gox bi yéen a fi man yéen a fi moom ay dafay nii sunu groupe bi amul lépp lay dugal mu jigi sax dañ koy bloqué ndax dama sonn si bi def yaa ngeen jëf waaye xale yi ngeen def médecine tout ça on est très content parce que man en Belgique noonu laa fa mel étranger yëpp lay jàppale yaa ngeen jëf kontaan nañu monsieur Didier s'il vous plaît waaw début de l'année yi bu ñu ma joxee bi moom dama koy nangu parce que man damaa bëgg a doom damaa bëgg a doom damaa bëgg a xale ndax biir si damay fat fat fat fat ba sama doom naan yaay di nga fat génne ma ne garaawul bu ñëwee rek ñu rogante ko kon lii dinañ topp bébé de année yi ba xale bi yegg vol ba ñëw Belgique nañoo yaatal rek te xam la fay baax tubaab yaa ngi ñëw yaa ngeen jëf kontaan nañ si yéen merci beaucoup monsieur Didier je te dis bonjour viens prendre ton micro merci beaucoup bismillah mi la seytaan na rajim bismillah rahman rahim ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si Seydina sante sunu ñaari waajur di sant suñuy borom kër ah di sant sama délégation bi ma àndal sama rakka ngi nii sama wet kii sama wet sama rakka la ñii ma ci ginnaaw ñooy liggéey si poste de santé nga paru ñeneen ñi ma àndal yëpp samay dëkkandoo la ñu ndax fu ma jógee ñu dëkkandoo ah di leen ñaanal yàlla tey ñi nu fekk se di waa campement bi ñoom ay dafay di suñuy mbokki relais ndax nu ñi ay relais communautaire nanu yàlla def man may présidente des relais communautaire bu nga paru ah ñoom ay dafay yey initiative bi surtout relais campement indi ko relais nga paru ndax bu ñu ko présidente des taxawu nañu ko jox kon loolu macha allah foor na rëy na sunul ah nu di leen di gërëm di leen sant di leen jaajëfal di leen ñaanal yàlla ah di wax seen bés mi yàlla na ko yàlla àggale si barke Seydina Mohamed lépp loo leen si mbébét yàlla àggale ka loo leen si ñàkk yàlla laa ka doom jii nu fi fekk sa tey di ka féete di ko def premier bébé dala ne mu doon ba doon jul teral yaayam ak baayam yàlla man na ka yàlla na ka def ah di gërëm tamit ICP bi ma fekk boo duggee si dëkk boo nuyoo maire nuyu waa municipal bi kon ICP ndax nun ay na nanu nox ICP nooy liggéey kon ICP du ñu fekk fii di poste a ak poste de nun koy jox yéeg waayam ba sa kaw a kaw macha allah a ah, di leen jox sunu nuyoo ICP maire bu nga paw ak ICP bu nga paw bi ICP bi du passé nu jox leen nuru Adja Khady Faye parce que lu jiig njaaga mooy njaag macha allah fay bi xam ndax tey bu ma ne taxawee nga paw tey ba am fa benn baat

dimbali nañu tamit ngeen jël ki jiite ndax ba ngeen di ñëw sama kër sax xamu leen ma maay présidente Dérale la yàlla xam na ka bi ngeen ñëwee ba toog laa leen ne wax maay présidente Dérale nga ne ma ah yàlla xam ne loolu masul lu koy xam ma ne ko maay présidente Dérale maay présidente CDS bu nga paxu te loolu xamu leen ko woon kon yàlla dafa def ngeen ekkati def te li ngeen doon booba xamu leen kon macha allah gërëm naa leen sant naa leen di leen seen bés bi yal na yàlla àggale lépp si barke Seydina Mouhamed nu fekkee te kalkat yeneen ak fekkat si nu ànd ak am mbégte di ka fekke te xam diggante nga borom soman be ba nga borom benn la waxatuma la relais communautaire ci département de Mbour ñun benn la kon sant yàlla gërëm naa leen centre de Ngexox 2 nuyu délégué de quartier bi nga xam ne moom lañ fekk ak imam bi di nuyu le personnel de santé bi nga xam ne moo nekk si poste de santé bu Ngexox 2 di nuyu la sage-femme de Ngexox 2 ak lycée de Ngexox 2 di nuyu les bajjens gox et les relais communautaires jaajëfal bu baax di wax ne bébé yi nga xam ne ñooy les premiers bébés du poste de santé de Ngakhokh 2 nga xam ne ñooñu fi teew taxa teew ñu ngi ñaan yàlla yàlla def leen ay mag ñi nga xam ne seen waajur lañ yàlla yombal leen ba ñu am luñ leen mën a yoree jaajëfal personnel bi nga xam ne it ñoom ñoo accouché muy la sage-femme madame Yade ak personnel mi bi fi nekk ñoo fa accouché les premiers bébés di ñaan yàlla yàlla yombal seen liggéey lu ñu ragal seen liggéey yàlla buñ ko gis di jaajëfal nit comme dafa guddi l'association des sages-femmes moo indi woon ñaari enveloppe enveloppe bu nekk am na cinquante mille teg ko si cadeau yi nga xam ne moom lañ jox premier bébé bi ak deuxième bébé bi kon premier ku nekk am nga cinquante

Euh, prendre parole après avoir écouté des éminents orateurs à l'image de tous ceux qui sont passés dans, sur ce plateau, c'est souvent se mettre en danger ou en insécurité. Mais néanmoins, Dina tenter parce qu'en rigueur je devais me préparer un discours dans ces cérémonies pareilles la musique c'est ça mais je pense que discours bi a le te donc euh, may leen ma tuuti rek ma génne li nga xamante ni moom laa yëg sama xol à travers cette journée d'aujourd'hui du premier bébé de l'année ou des deux premiers bébés de l'année de l'année 2024 du poste 2 de Ndiétokh euh, ginnaaw bu ma jëlee nuyoo boobu teg ko ci ki nga xamante ni mooy ki fi yàlla teg muy monsieur le maire Pape Songo Diouf l'honorable député monsieur le maire Pape Songo Diouf ñu ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam mais également à Mangi nuyu du centre du fait de l'école, Moussak sax ak M. Euh, le chef de quartier de Nalor. Je également de remercier mes euh, supérieurs hiérarchiques en l'occurrence le docteur Malomar Jean-Jacques Malomar le médecin chef du district sanitaire de bourg qui ne ménage aucun effort pour nous mettre dans les dispositions nécessaires pour le bon déroulement de travail qu'on nous a euh, assigné ceci étant maa ngi ñaan yàlla mi nga xamante moo am te lu mu bëgg rek ay am bébé yi nga xamante ne moo tax ñu tosi toog fii di tey di ko féete yàlla leen yàlla na yàlla def ay julit yàlla may leen wér ak wér bu wér ak wérle def ci ñoom barke ba nga xamante ni dina jëriñ seen waajur jëriñ askanu ngeen ko xam ne jëriñ Sénégal yëpp yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def góor ak jigéen mag ak ndaw xëy na seen moo féete ci temps waaye dama bëgg ngeen dégloo ma xel bu baax a baax a baax parce que en réalité li fi am ñëpp bu amee parce y a des gens derrière moi des femmes et des hommes nous avons tenu tous les jours 8 heures ils sont sur les locaux du poste de Ngeko pour servir la population Oui, les agents de santé du poste de santé de Ngeko 2 à l'occurrence madame Yad et l'ensemble des autres collaborateurs sama yayi sama sœur yi sama frère ma nekkal ci m'a poste sinon des groupes, man, maa di jox teg sa centre di la sante di la gërëm di di xamal effort tous les jours que je fait maa ngi ciy teg sama bët. le ngeen ma ngeen parce que parfois le chef enfin je ne beaucoup woon sax utiliser le terme chef parce que le chef c'est ça c'est un lexique révolu lexique maanaam waxin yoo xamante ne dañ koo dépassé ay collaborateurs mais Quelles que soit la mes humeurs la rigueur que je mets dans le travail vous parvenez à supporter

ma leen di fàttali ne gis nañu bés bii tey daaw dañ ko yoon ren dem na ba presque au mois de octobre ou novembre sama xel a ngi ci mais jàpp dama xam ngir organisation yombul ma ne dama koy off waxuma kenn dara mais ñoom ci seen bopp ñoo ma woo ne daaw dañ ko juñoon ren dañoo bëgg mu nekk ma wax wax ñu ne ma day nekk te effectivement nekk na kon maa ngi leen leen gërëm ndax nit boo nekkee moom ci ginnaawam bokk nañ nga déggal ko mais di ko xelal aussi di ci am solo te xelal ngeen ma ci journée bi tey am na yu bëri yoo xamante c'est des initiatives à leur niveau personnel yoo xamante man yëgguma ko woon sa xalaatuma ko woon donc maa leen di sant di leen gërëm mais vous savez euh, xam nga jël tudde nit mbir mu nangul loo ko dafa jafe surtout jamono bu ñu toll tey ndax kenn ku nekk li nga am doy na la mais ñi nga xamante ne moom lay tuddee bébé de l'année bii muy monsieur Ahmed Diallo di gox bu bees euh, monsieur monsieur sa Wali Dione madame Bambi Faye et madame Sassoum Sané man mi buñ ma gisee tey jii lañ ma gis président comité baa nga nële gis ñu leen dañoo bind ay kayit rek jox relais yi ñoom ñu dem yëbal leen noonu lañ ko nangoo te mënoon nañ ne il faut que votre autorité ñëw jàkkaarloog man tax c'est des responsables mais vraiment nangu mais bëgg seen askan parce que en réalité ce qu'on pour la population de Guékon kon mais nit aussi dara dina la war te doo ko def te kenn du ci mën dara buñ leen nangulee lii cant ak ngërëm def leen ñeent madame li jógee euh, madame euh, madame Diop franchement je suis très content man moom mënu su ma waxee rek wax naa la parce que lorsqu'ils m'ont interpellé par rapport ak yow vraiment mbégte bu rëy laa ci am te gis naa ne également ni nga duggee rek wane na ko donc ñu ngi lay sant di lay gërëm yéen population wu Ngaparou yëpp euh, lii yëpp nag nga xamante ni fi am seen mënu ko personnel bi nekk ci poste bi kese mënu ko euh, relais ba jël gox mënuñu ko dafa am ñoo xamante damay faral di liggéey damay liggéey ak ñoom poste de santé boo dem am na fa ñu koy wax comité de santé léegi ñu koy wax comité de développement sanitaire et euh, ki nga xamante ne moom la yàlla dogal mu jiite ko muy monsieur Moussa Faye Diouf un directeur de directeur d'école au niveau de Nianing ku dëkk fii biir Ngeekoox juróo fi màggoo fi yaroo fi nous avons depuis daaw di un travail remarquable à travers mon Mangi ngi tous les membres du comité de santé Sauf que Ngom mi nga le trésorier du comité de santé de faire c'est CAC son deuxième mandat mais elle est sans faute disponible et travailleuse mais surtout modeste et effacée Ce n'est pas évident euh, poste bi nak ñu bari ñuy wax ay qualité ñu bari di wax wante des nañ japp ñun ñi nga xamante ñoo fa nekk li sas la mais bu xëyul xey tay rek soti c'est parce que y a eu des gens qui ont passé et qui ont mis leur touche là-dessus c'est sama ancien ICP moy Cheikh Ahmed Tidiane Niang Pape Alé Ndiaye monsieur Ousmane Diédhiou comité de santé yooyu su ma leen tudd rawatina ñu fi jógee at bi passé en l'occurrence euh, mon frère et ami Arouna Diallo Gonduma Gor parce que damaa ñëw fekk ko fii muy Arouna Diallo ak un comité de santé

bi ñu xëyee suba ba léegi ay jeunes ay jeunes ñoo jàppale ci orga ñoo ñu jàppale ci organisation bi. muy Modou ak ses compagnons Modou dañ ko jël rek mu ñuy liggéeyal bu koy neexon guddi ba guddi lañ koy gis mais lepp ba mu doggé ci possible légui saay bu ne lepp lu poste bi nekk moom mu ngi ca et ça vraiment je vous tenais à vous remercier yow ak jeune koñ bi ak ko euh, jeunes yi nga xamanteni ne ñoo nekk avec le docteur euh, le docteur Diouf tey suba yépp ñom ñëpp ñew nañ fi man dal vraiment suma ma guddalee damay juum xam nak amna ko am xamante ne wala ñakul ko xam waruna la sante de la mais xeyna na bés bee demee nii ngi sante de geureum samay collègues ICP yi nga xamanteni ñu ngi won fille, en l'occurrence Dame et Ousseynou Gueye mais également mon ami mon frère ki nga xamanteni ni Ngeekoox moo ñu boole muy Paul Diouf et son comité de santé et son personnel de santé mais surtout et surtout l'association des sages-femmes d'État et je voudrais que vous les applaudissiez très fort parce qu'ils ont marqué leur part franchement par rapport à la réussite des jeunes, journée dañ cee def de mobiliser ñom ñep ñew franchement ma ngi à travers vous Mme madame euh, Togola à travers vous, ma ngi sant di tous les toutes les personnes, toutes les sages-femmes du district sanitaire de Mbou. madame Yann, franchement ça c'est un défi qui nous ont Bon xamante vraiment ji et c'est ça vraiment je suis touché par par par vos actes de générosité merci en tout cas merci. il euh, y a eu beaucoup de personnes que quest ma que fii rek xëy na sama xel dina am lu ma jëm ci yow madame euh, la le maire la maire Daba la mairesse Daba Ndiaye maa ngi lay sant la gërëm. vos efforts Awa Faye les conseillers municipaux tout le monde vraiment su ma toogee di lim rek damay damay damay en tout cas maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñii nga xamante ne ñoo dëkk ci koñ bi ah, ñu ngi leen di mastaw di leen jégalu gis naa également seen taxawaay pas bii nii sama papa seen tey bu ñëwee tey ci bâche yi la doon jàpp xam nga loolu moom vraiment yéene mënutul weesu loolu maa ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm ah, di wax ne nag

est également exceptionnel franchement maa ngi koy sant di ko gërëm bi ma féete xam xam naa ko te bi may nekk ak moom dara dul dara et ça important merci maa ngi sant ñëpp

merci merci beaucoup merci votre chaîne Ngeko TV c'est TV une chaîne télémédia bi pour vos reportages des émissions couverture médiatique vos publicités Ngeko TV indil na avec une équipe pétrie de talents médiatiques Ngeko TV un autre élan de la médiation sénégalaise partagez et abonnez sur votre chaîne Ngeko TV